jël boobule euh, euh, décision ba tax sax yenn euh, lopp du moins yenn quotidien yu bëri lu su mel ne sunu làmb ak yeneen jamono ji kenn gisatu leen te boo mooy wéyee ci li ñi nara réer dina daal di bëri lu nu mel nag nga ko jàngate waaw d'abord je maa ngi masawu ñi nga xam ni véritablement mbir moomu dal na seen kaw mhm. mais man ni ma ko jàngate mooy du euh, dafa mbir mu dal ci kaw presse bi dedet moi je rectifie en disant que hmm. mbir mu dal ci entreprise sénégalaise là, au fond entreprise yi nga xamné ne ñu cotiser convenablement euh, ci impôt wala ñu am ay arriérés ñu épuiser tous les voies de recours nga xam war nañu fay ñu muy entreprise yi hmm. ñu ni entreprise yooyu nañu fay wala ñu tëj hmm. loolu Euh, du gouvernement moo ko def loolu dafa nek ci texte yi nga xamni ni régir loolu dafa doon lu nga xamni ni ñun ñëpp ci d'accord c'est-à-dire parce que gouvernement dafa ñëw di doxal lu nga xamni ni ñun ñepp ci d'accord ah nam nak amon na gouvernement bu am lu nga xamni day war am du ko amal xam nga ku mel na entreprise bi ñuy wax premier bët defe mom moom defe naa na fermé na portam dem lan ay impôt même le chef d'entreprise ba mu dem ñu téye ko ni kaa foog nga joxé nangam nangam yooyu day am attention on parle d'entreprise la presse n'a rien à voir avec les maisons de presse en tant qu'entreprise. mais de décision yi ñu jël décision yi ñu jël ci presse bi la parce que ci presse bi la ñu jël yooyu la di wax non mais parce que ñom lañu attaquer directement ci la ñu wax ci ñom ci ñom ñu les entreprises c'est toutes les entreprises qui ne payent pas de l'impôt, qui ont des arriérés d'impôts. non le la de de maintenant après, bi mois la million de dollars. tout simplement et puis je le dis hein, je le dis partout et il va falloir que les choses soient claires Moi, lan au fond l'entrepreneuriat, l'entreprise n'est-ce pas ce euh, c'est le centre de décision capable de se doter d'une stratégie un modèle économique clair avec tous les neuf blocs donc remplir normalement je ne parle pas d'impôt seulement je parle du paiement euh, par rapport à tes employés je parle des cotisations sociales et employées. la presse les gens qui travaillent là-bas ce sont des victimes de grands entrepreneurs qui sont là qui ouvrent leur filiale leur leur entreprise euh, leur unité économique et qui ne remplissent pas les normes alors on vient on dit mais remplissez les normes nous nous ñan yor euh, premier par exemple des benn chargé de communication am di wax bon amna yenen yeneen entreprise yoo xam sont dans les difficultés parce que on ils avaient l'habitude de ne pas payer l'impôt kep ku daawul fay impôt dañ ne na nga fay impôt parce que impôt fay bok ci li nga xamni ñun ñepp ko bok manam fu du ma la baal sa impôt c'est-à-dire buma la dama jël lu ñëpp bokk man ma baale ko c'est-à-dire le président Ousmane Sonko ne peut pas le faire le président Diomaye Faye ne peut pas le faire mën na bañ a am baale mais mën na am discussion waxtaan trouver benn terrain d'entente boo xamee tey ji parce que boo mën na ne toog benn maison de presse nga ne ko tey di nga fay benn douze millions wala benn quinze millions sur une semaine loolu aussi dana nekk lu xaw a metti tout cela est prévu par la loi bu ñu demee ba ni la avant une semaine di nga fay mooy yow toog nga et on a épuisé tous les voies de recours suñ la waxee di la fayal nga xool loi bi bu la loi bi may nga ñaan nga ñaan waaye bu voies voie de recours yëpp épuisé que ba paré ñu ne la nag fayal nga ne nañu discuter dédé yow tu as épuisé les voies de recours parce que ñu rek bu fekkee da nga yoré impôt ci saa si da ngay fay dañ lay jox un délai dañ lay bayyi touti dañ lay may ki amna yu bari c'est prévu moi je suis pas un inspecteur des impôts et domaines mais il y a beaucoup de choses qui qui sont prévues maintenant bo démé ba ci cappaandaw gi fofu lañuy sogani yow mëna to continuer di fonctionner Oui, entreprise lay wax moi je parle pas de la presse les presse bi journaliste presse mais nous nga des patrons d'entreprise ils n'ont qu'à se conformer euh, euh, aux entreprises par exemple quand tu vas dans les écoles aujourd'hui toutes les écoles privées sont assujetties à un certain nombre de règles. Mhm. Mais dès que remplir convenablement sur le rôle, nous faisons ces écoles privées. Et pourtant, école privée, service public, les def. vous faites que vous faites que école man ci école ay yëngu école privée bobu dañ koy tëj loolu yëpp dañ koy régulariser un pays euh, ce n'est pas une un coin de de rue du loo nga xam ni ben benn benn koñ la adu ab koñ dañ koy jaral ci yoon rew dañ koy tek ci ay charte rew dañ koy tek ci ay loi rew dafa am constitution loolu yëpp nak bu fekkee ni yow respecté woo ba pare nga ni nañuy waxtaan dañuy waxtaan ci lan ñooñu est-ce qu'ils sont euh, euh, appelés est-ce que am nañu n'est-ce pas euh, n'est-ce pas prérogative wu continuer waxtaan alors que texte, il wax nañ li wax texte maintenant on humanise les textes am na yu bëri yoo xam euh, peut-être waroon nañ ko def mhm. waroon fay fayaguñu ñu top leen ñu bañ a fay ñu wax ñu bañ fay na jox na leen ñu dem man de dañ ni ma 12 jours moo déssé dese nangam avant ñuy def 12 jours toog nga lu bëri euh, et puis on n'a pas creusé plus loin man limay wax sax defuñu ko moi j'avais dit de faire l'audit des entreprises de presse ak yeneen entreprises yëpp ñu fi nekk ay naar yore ko jóge à l'extérieur di exploiter suñu ay nit suñu ay travailleurs guddee bëccëg suba ak ngoon du alam ci loolu démb boo demee tës tës yóbbu nañ fa benn entreprise bu nga xam ni ñu ngi koy wax CUNET gars yi neen duñ ko wax man maay wax CUNET ñu naan duñu wax turu entreprise bi lol moy ak sénégal quand tu as un problème mais tu le dis mhm. way du wax autour entreprise bi waye daf lay laaj 400 000 bu la laajé 400 000 mu dem ni la nga indi wat ñaari nit bu la wax indi wat ñaari nit daf wax indi 100 personnes c'est violer même l'intimité des individus mi ni mel mu ñew manika jox ma turu numéro téléphone 100 personnes ñu jox le numéro de téléphone 100 personnes ñu wo personne yoy di len wo lolou yep ay violation yu nga xam ñu koy def est ce que ñoo ñi ngi elle s'appelle ci devenir un comme nous